avons parcouru la diaspora. Mhm. Sénégal N fois. Sénégal. Mhm. maintenant sur ces postures sur ces positions ben moi je ne saurais vous dire parce que mon moo ko xam. ak mhm. te wax voilà donc moi par principe alors je respecte euh, les principes des gens. la posture des gens. parce que. Euh, li nekk ci bopam ak li tax mu def ko moom rek moo xam. Mhm. waaw leen rek moom rek moo xam. Mhm. et moi je suis persuadé que Bougane faisait partie et fait partie de ceux qui voulaient un changement dans ce pays là. parce que man xam naa Bougane kenn mënu ma nettali Bougane. Mhm. su ma ko woon léegi mu jël du dëgg. effectivement kon noonu la demee. Euh, on a fait beaucoup de choses ensemble. de gëm naa ni kenn bëgg ko gën kenn gënu ko bëgg Sénégal. waaw ça moom j'en suis. alors euh, monsieur Niang euh, tout à l'heure yaa ngi expliqué que ni gëm sa bopp nekkul ne benn nit kese moo koy doxal.

Comment mu soutenir moom mooy nekk sa directeur de campagne. alors pourquoi il n'a pas fait ça. parce que loolu ñoru ko nekkul koo xam il est imbu de sa personne Comment ku mu soutenir bu parlez day laaj lu ko neex ñu jox ko poste ministériel. mais mën na bañ a non vous faites bu fekkee tey dañuy raisonner. Mhm. par rapport à l'écrasante majorité le commun mortel vous ñuy xalaatee bu ñuy raisonner comme ñoom ku mu soutenir bu parlez day laaj lu ko neex comme lu ko redevable mais loolu ñoru ko dafa wan loolu lépp ginnaaw dañ ko ubbiloon porte privilège yépp mu wan loolu ginnaaw ça veut dire kooku ku bëgg Sénégal la comme ni ko doyen di waxee ay mbiri boppam ñoru ko tey xoolal ñi demoon bokk ci coalition bi yëpp bu ñu génnee dafay attelage gouvernemental bi del xool di nga gis ñoo xam ne amuñu profil pour gérer li li leen jox mais dina leen tabb ci ay ministère. ah pourtant Ousmane Sonko waxul ne noonu lay liggéeyee. loolu campagne la woon. mais pourtant lan moo lan selon yow lan moo lan moo tax. xam nga xam nga Charles de daf koy wax les la ko wax les promesses de campagne n'engagent que ceux qui y croient dafa am loo xam waxu campagne la mais la réalité du terrain mën na nekk loo xam ne lu différente lay doon tey boo xoolee lan moo tax ñu yéex a gouvernement bi. selon vous lan la. mais yow équipe boo xam ne jàpp nga ni da nga war a gagné jàpp nga ni yow yaay gagné yaay favori normalement bu ñu proclamer wala ñu invest defal la sa investiture ba pare automatiquement liste bi war na mën a génn bu fekkee amul xëccoo mais est-ce que lo xamantene la tey jii dañ koy yakamti à ce point. ma waxu ñu waxu yakamti quoi. voilà dama la wax réalité affaire yi ni muy dem ñun Sénégal la ñu nekk. Mm. on ne réinvente rien fi ay prophètes nekkuñu fi. xam nga tay man lan lay bañ ñu japp ay nit def leen ay prophètes ou bien des messie amul ay messie fi ay nit ñoo fi nek te réalité bi ñuy dund ñun xam nañ ko. lan la dund c'est-à-dire ñun bu ñu soutenir. Mm-hmm. une quelconque coalition wala buñu démé demee paré ay poste la lay jox ay responsabilité la lay jox ñi lay critiquer yépp foofu la ñuy waxee ci élan boobu la ñuy waxee mais ñu dalal seen xel wax leen ni loolu ñoruñu du ay poste moo ñu tax a jóg du ay responsabilité moo ñu tax a jóg man tey bu dee poste ministériel moo ma tax a jóg bu fekkoon dama ko soxla bu fekkee salaire ministère ministre laa soxla président Bougane mën na ma jox la ëpp loolu moom bu fekkee poste ministère lañ doon xalaat ci moom wala occuper benn position privilégiée ci attelage gouvernemental mais lu mu yor poste ministériel mais monsieur monsieur c'est il a réussi sa vie il a fait mieux que ministre est-ce que tu as est-ce que tey jii salaire war na tax sénégalais du coup damay dem mais l'écrasante hmm. majorité des souteneurs. yi nekk ci yenn coalition yi loolu tax a ce c'est la réalité n'est-ce pas il y wax que c'est pas le cas chez Bougane mais c'est pas le cas chez alors pourquoi pas moom bu nekkoon dans les grandes démocraties dañ koy ériger en exemple parce que nit le koo xam dañ ko porte privilège yëpp woon ko on peut dire que ni nit la koo xamante il sait prendre ses responsabilités. nit corps xamante ni mën jël ses positions. donc loolu monde nañ ko accepter tamit mais tamit monsieur c'est est-ce que t'as dit, sénégalais war nañu dem di xëccoo ji euh, un poste ministériel juste parce que ñi ngi euh, salaire bi wala dañoo am les compétences qu'il faut pour mën servir la population sénégalaise. Oui, mais wax nga ko donc euh, xam un portefeuille ministériel c'est un poste stratégique.

deret ji Tourou tuuru problème yi nit daj je crois que ñun xam nga ban phase de la war reconstruction du pays tout à fait avec les les valeurs de ce pays là parce que ce pays regorge de potentialité kon tey war nañu les problèmes d'égo pour l'intérêt du Sénégal man man gisatuma ñu wax parti wala mouvement xam nga lu ma gis réew mi ñu ànd joxante loxo pour tabaxaat parce que dama la wax que les défis qui nous attendent sont majeurs au regard des enjeux géopolitiques géoéconomiques et éco écostratégiques nous sommes dans une ère avec la découverte des hydrocarbures nous ci développé pour nous sur le volet migratoire parce que l'on moo fi uh-huh. il y aura un dumping migratoire. Uh-huh. il a parlé de l'insécurité alimentaire l'insécurité sanitaire, l'insécurité juridique. Mmh. Eh, parce que y avait, y avait, y avait euh, dañu nekkoon sous une menace euh, d'une insécurité judiciaire qui nous menaçait tous man dund naa ko mmh. kanin dund na ak yeneen ak yeneen mmh. je crois que ensemble dañu déconstruire pour reconstruire y compris même les mentalités tey lépp la ñu war dafa parce que li yàqu-yàqu dafa bëri te suñ demee ba si kanam di gis ni bi ko le pays est abîmé sur tous les plans kon tay euh lepp luñ fi teg rek nañ ko jox kiko ko mën. effectivement pour béréb añam parce que waratu ñu daf erreur kon gouvernement bi wara a génn man je pense que dafa wara nek un gouvernement d'union nationale. Mm-hmm. où on va regrouper toutes les compétences. ku nek sa wal domaine bu nek ñu jox ko kiko ko mën ñu ànd liggéey Sénégal. Mm-hmm. man lool la gis. Mm-hmm. waye nak man du man lañu fal ñi fal nak je ne dul ñaanal leen parce que j'ai été le premier à écrire j'ai écrit un article où j'ai demandé un vote utile autour du candidat Diomaye Sonko la première année article il y avait des y des journalistes qui refusaient parce que ma campagne commençait, gul te faire far la ma ko si la effectivement mhm. ku bëgg publier ku bëggul pour publier ma ni leen suñu tous les candidats pratiquement nous avons ñëw nañ je sais, ñu daf daf ci diaspora bi man sama parti Sénégal man parti Sénégal la gëm lool fi indi. alors pourquoi nga pourquoi nga porté ce choix né nañu le président. Wa parce que la dynamique était là-bas la dynamique était là-bas xam nga so amé lecture politique li fi naw amul dara c'est c'est c'est c'est Ousmane Sonko qui incarnait ce changement-là xam nga nit ki nañu nangulante. Mhm. suñu nangulante leg qui yomb. lool problème nit ku am Sénégal c'est le principal artisan de ce changement puisque les gens voulaient un changement ñi fi nek na fi lool motax ma ni un vote utile c'est différent mhm, mhm. man vote utile la wax na ñëpp ci la sax am ay candidats yu parce que xam nañ duñ dem. ñu dem la leen man c'est pas c'est euh, du man problème problème xeex yi ñu jóge fi loolu comme yàlla daf ko naka moi je pense qu'il faut faire taire les divergences mhm. tay loolu yëpp xajatu fi réew mi lañu wara wax réew mi nak suñu xalaté ni ki kat liñ ko jox ni mën na ko ñu jox ko waaw man loolu la gis. Mhm. mais su nekké genre partage rek. Mhm. alors day yàq te du defar loolu day. du alors monsieur Niang tey jii ku mel ni Bougane Gueye dañ nga xamanteni sénégalais yi gis nañu ni nga xamanteni non lay défendre ses positions noonu la duggee soobu ci l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes jàppale nit yu bari bari euh, ci ci ci li ko yàlla may alors nga foog ni kooku non tay mérité wul ñu bolé ko ci li nga xamanteni mom moy le nouveau euh, gouvernement bi ñuy waaj euh, mettre en place. voilà c'est-à-dire li nga wax ni dafa am solo parce que le président Bougane quoi que l'on puisse dire moi li ma mon sànq dafa am lu mu ci mi il a fait mieux qu'un ministre dans ce pays mm-hmm. il a réussi mieux qu'un élu dans ce pays Quoi xam décret présidentiel d'accord le président Bougane li mu réussir réussir gu ko parce que dafa am lu contribuer ci réew mi kooku nag dafa am mérite lépp lu ñu ko jox yomb ko mais nag ñun li dox ci ay conviction lañ koy teg mm-hmm. maanaam du ñu def dara daje xaar leneen beneen pay lépp lu ñuy def dañ koy def pour le bien-être des Sénégalais lépp lu ñu def dañ koy def pour l'avenir de cette génération bi nga xam moom moo war a ñëw xam nga li ñuy wax Sénégal dafa am nous xam dañ ko rétablir muy devons ba ñi nga xam ne dañ leen di dénk ñu nekk ñoo xam dañuy jouir d'une probité morale et intellectuelle am ay compétences avérées mais également am lamboo ay vertu parce que nous devons jël euh, de vieilles pièces nga bëgg ci une nouvelle chose Nous nekk mënuloo jël ñoo xam dañ dañoo yàgg a sàcc tàmm sàcc ba seen loxo rendal rek lay def nga bëgg leen teg ci ay poste de position prédilection hmm. wala ay poste de privilège yoo xam dañ fay gérer ay man financière wala ay régie financière ba pare bëgg ci escompter ay résultats c'est pas possible hmm. on ne peut pas vouloir une chose et son contraire mënuloo jël ñoo xam ne tey dañu àndoon ak Diouf ànd ak Abdoulaye Wade ànd ak président Macky Sall bëgg ñëw àndaat ak Ousmane Sonko ak Diomaye naan leen may seen yaay may seen nangam nous xam symbolisés, tout ce qui est transhumance. mais est-ce que bu ñu bokkee conviction également Toutes les choses les plus abjectes ci sont espace politique politiques. avons symbolisé. symboliser nga bëgg leen jël bëgg leen comme référence pour cette jeunesse. Vous nga un attelage gouvernemental vous avez a ñëw dafa am ay facettes yu la nouvelle génération les bonnes pratiques faire servir le pays sans se servir mais également nga làmboo ay vertus faire ba am une probité morale irréprochable loolu dafa am solo parce que nekkul le résultat physique bi rek soxla ou bien résultat économique mhm. mais daf am beneen résultat boo xam dañ ko soxla. kan nga ni actuellement. et là aussi beaucoup ko doon quantifier c'est inestimable. alors kan nga jàpp ne yow tey jii bu ñu ko tabbee ci ci gouvernement bi parewul pour servir euh, la population c'est dama les, les les les PIP ak les Maymin comme ñu mel ni tey ñoom Aïda Mbodj ñooñu war nañ dem retraite céder la place à la nouvelle génération ku nous ni ñoom Habib Sy dañu war céder la place à la nouvelle génération ku mel ni ñeneen ñi nga xam ne ay rapport de leen épinglé tey ku mel Mustafa Guirassy rapport Mustafa ko épinglé pourtant dañuy wax ne dañu changer le système def leen ay recherche ngeen Mustafa Moustapha Guirassy rapport épinglé. mais espérons que ni gouvernement bi dina taxaw ci lu mail parce que. combien de fois le transhumé ci ci carrière politique combien de fois ku mel ni Aïda Mbodj nga xool ku abipsi, ni euh, Habib Sy ak Abdoulaye Wade taxaw nek directeur cabinet di défendre li nga xam 3 troisième candidature Abdoulaye Wade tay nga ñeu bëgg incarner ce nouveau système c'est-à-dire il y a tout un tas de choses bo xam dañ ko bëgg a ci bir mbir mi te buñ ko ci dugalé du dem. alors parce que daf ñuy rattraper. est-ce que mën nañu xaar tamit loxo Bougane ngay Dany ci bile gouvernement. xam nga li ñuy wax tay au niveau de Gëm sa bopp li ma wax sank dañ nek dans un mouvement citoyen mais démocratie interne mo fay daw lepp lo xam dafa ñëw comme proposition wala lepp lo xam dafa ñëw comme une réalité dañ koy tek sur la table ku ne xool sa morceau ak foog ci war a orienté wu bu boobaa dañuy jël la décision bi nga xam moom moo war a imposé wu parce que nous sommes dans un mouvement démocratique. mais loolu épargné wu leen ko quand même. épargné wuñ tey Sénégal lépp luñ mën a def excluruñ dara lépp luñ mën a def pour que gouvernement bii nga xam moom lañ teg mu réussir mission bi. Mhm. servir les Sénégalais loolu dañ loolu duñ ci hésité duñ lésiner sur les moyens pour servir les Sénégalais. Mhm. parce que c'est ce moo ñu a alors dernière question La taille dem ci euh, clandestine et euh, li nga xam ne jot ni xew ci passé euh, monsieur Sey, comment nga vous a la nomination d'Ousmane Sonko comme le premier ministre du gouvernement. mais bind ko il était naturellement le le le le le premier ministre du Sénégal c'est logique hein le principal artisan de de tout cela c'est Ousmane Sonko le régime a tout fait pour le bloquer. Ils ont contourné. Ben, c'est tout à fait logique qu'il soit Premier ministre. Mhm. Donc moi, je pense que euh, c'est rendre à César ce qui lui appartient. Voilà. Donc on le félicite. Et puis, il y a Maïko, mission. Mhm. Euh, mission, oui, pour le bien du Sénégal. Mhm. Alors, euh, Nya, euh, mm -hmm. comment est original euh, euh, le mouvement bien la coalition Gumsobopo après plus de trois mois de trois ans de collaboration Alors, mon tamit Gumnene wane wane sa position pour que nous appelions qui la coalition Jomai 2024. Alors, l'an révélation vient tu apporté apporter une information de plus.